Kaiser magnifique Bambali Mané bi Vinicius Junior gars Lalle Sadio Mané Warti Vinicius Junior loolu Fassini, wartane, le Brésilien sénégalais qui parle du brésilien de la CSAO loolu lay mais avant tout gars yi ñu encore une fois mbokki sénégalais hein, ah remercier ci confiance leen remercier également ci seen suggestion ak seen critique nit matul rek mat mais également aujourd'hui on va continuer à faire beaucoup de progrès ngir rek satisfaire les motards aussi bu leen ni ngir mën ñoo jàppale bës leen ci lien ci dem abonné ci Baba Show di jot information yi en version française amna une ay nouveautés surtout ñi féru du football boy bëgg football du football ak également amna incha allah ngeen gis ci seen bopp baax a baax kii nag gars yi di Antoine Griezmann Griezmann keroog benn défenseur grec daal moo ko bàyyil benn tatouage bu garaaw quoi gis ngeen malheureusement gis ngeen gaañ ko ci bagg <laughs> gaañ ko ba ñu ñëw ko fii nii Antoine nga xam ni ñu kaas li ba léegi naan lu tax Mathéus Souao joxewul carton ñi nag di waa Ligue sénégalaise de football professionnel nee nañ match bi amoon diggante Casa Sport ak ñi nga xam mooy waa xam ngeen dañ ko match boo dafa incident et tout léegi nag match boo ne dañ koy joué waat Mori Diaw dafa def message bu émouvant adressé ko ci li nga xam ne nag moom mooy donc euh, équipe euh, supporter sénégalais plutôt de manière générale wax li nga xam ne mooy jaar et tout et tout et on va revenir sur ça parce que c'est assez important mais Mori Diaw daal gars yi li ñu mën a wax mooy que ne mi ngi remercier sénégalais yi nee fierté de pour jouer pour équipe nationale du Sénégal notamment match dem bi lu la ko marqué mi ngi dem nag liggéey waat mais bu ñëwaatee lay gën a baax di équipe yi qualifié gum ci coupe d'Afrique Afrique di Cameroun match am bii il faut mu dóor incessamment bëggee qualifier coupe d'Afrique sinon Cameroun du dem coupe d'Afrique B. bi kii nag di José Mourinho wa euh, commission arbitrale ñoo ko daan lu tolloog ñeenti match yoo xam ne du ko toog ci banc équipe ba muy entraîné mais aussi waa AS Rome daan cinquante mille euros ba pare ne daan match boo xam ne euh, benn seen tribune supporter yu ñu seetaan match boobu kii nag di Marcelino nekkoon du côté de l'Espagne Espagne ah, ñëw du côté de la France nar a entraîné ñii di Olympique de Marseille waa ji nag gars yi ça am na lu mu mën a avantage bu am ci sénégalais yi nañ ci dellu si ci kanam nak di également Neymar selon ñi nga xam moy do le parisien nee nañ ak PSG communiste nee nañ kii di Luis Enrique moom moo woon Neymar nako bo boo bëggee mën nga toog Paris Saint-Germain ñëw nak pour carrément di la neexal yooyu je compte sur toi mais da ngay hygiène de vie am taxo doxalin bu bes bo yoy bo bëggee tok sinon bu bëggee dem mën nga dal di dem ki nak di Xavi Simons Xavi Simons également mon Paris Saint-Germain à partir de juillet mën na lever option bi nga xam option d'achat mën na ko à 6 millions kessé mais nak euh, am na club yu bëri en Angleterre yu koy top Xavi Simons bi def saison bu exceptionnelle Paris Saint-Germain nak nee décision dernière décision bi sax ki di Xavi Simons la la moo ko moom pour ndax day dem Paris Saint-Germain wala day dem ci benen club euh, Paris Saint-Germain bi nga xam également dañuy intéressé wu ci ki di le phénomène Victor Osimhen phénomène et le phénomène de la Série A 180 millions le Kiwan Napoli de laaj bu ñu gënd jënd qui Osimhen donc euh, Romelu Lukaku Romelu Lukaku n'est non ah, jusqu'au bout mom bu ko kenn wax Arabie Saoudite day tok et il veut marquer le coup du côté donc de l'Inter de Milan loolu la et Tony Kroos Toni Kroos également They day tok du côté de la Casablanca les plus accord amna depuis mars passé légui nak li des moñu officialiser ko benen année lay 2024 inshallah du côté du Real Madrid Gundogan. day signé contrat am def na visite médicale ba paré gay signer signé contrat am ba 2025 du côté du FC Barcelone am ben année supplémentaire boo xone mën nako prolonger ba 2026 mom nak wa Barça dañ ko garantir né dañ ko inscrire ci li nga xam mooy seen liste joueurs yi kii la di Laporta dañ ko laaj ne ko ndax day ñëw euh, Barça ou pas waxu len dara mais bu muy dem dafa def loxo bi ñu mel ko wax ok. nak ok le wa euh, Bayern Munich bëgg dégg sur sur le défenseur donc de Villarreal mi nga xam né aujourd'hui Bayern mom la jël def ko mu nek option A pour d'aller remplacer Hernandez mu feneen bu da fay jógee mais aussi ki di euh, Unai Emery nga xam nekkoon na entraîneur du Real da ko bëgg indi kii nak gaay di xam moy mooy donc Gravenberch Gravenberch moom nee na actuellement dal gaay euh, mom bu fekkee né wa Bayern de Munich mënuñu ko jox temps de jeu da fay dal di jógee moom nag dafa ñëw Bayern pour football ñëwul pour toog banc fekkee mënut ta nekk dal nañ ko bàyyi mu dem yonam lool dal la daal di wa Adrien Rabiot également wa Juventus de Turin defal nañ ko proposition contrat ak benen salaire pour mu daal di fay toog parce que Rabiot moom nee na jëm rek lay gis il va partir agent libre et on l'appelle et plutôt on l'entend du côté de fa nga xam mooy donc ci Angleterre daal lañ ne fa lay dem kii nag di Thomas parte Thomas parte également ah il va partir ou il va rester Thomas parte daal moom li wax na donc fi ne nii avant marque près Partey la waa Arabie Saoudite wax dem ci moom mais moom waxagul ban décision la jël Arsenal nag pare nañ parce que fi ne nii dañoo bëgg a indi Declan Rice kii nag di Sadio Kay Zomaré fi maa ne moom ak relation brésilien yi c'est extraordinaire ngeen gis ko fii nii moo ki nga xam mooy Claudio Tafarel hein, wax naa ko sàmm juum nan si la le gardien emblématique de l'équipe nationale du Brésil 1994. Sadio Mané, le plus brésilien des Sénégalais et des Africains, moom nak, wax na ci ben joueur moy Vinicius Junior Néna Sadio Mané Vinicius Junior beaucoup na ci trois meilleurs joueurs au monde actuellement Néna boy la bo xamné mom moom bokk na mag ñu gis mu talent am potentiel que il ira très loin lolo Sadio Mané wax ci ki nga xam donc Vinicius Junior Vinicius Junior mi nga xamné aujourd'hui ah donc demb. il a fait un gré très grand match ah dafa ndayeeg ku def un très très très très très très très grand match mu Youssouf Sapaly Sabali mais Vinicius def na match bu baax Sadio Mané nak amul admiration ak respect ci booy bi Vinicius également am admiration ak respect ci Sadio Kaiser magnifique Mané c'est ça le football ndana moy xàmme ndana niko gaay di waxee et je pense que Sadio Mané a fait un joli témoignage gaay nak après dinañ wax ci ki et je l'ai toujours dit hein bon vous waree vous défendre défendre critiquer vous koy critiquer parce que critique positive négative après il y a une vidéo qui est Cissé et s'il vous plaît vous voulez ko pour voir un peu les choses. donc vous wax ci ñu on va parler de El Tactico gars toujours un plaisir hein, de servir woy de like surtout woy de di abonné vous abonné leen loolu ngeen si mën a jàppee ci lien également dem abonné ci Baba Show di jot version française bi saa yu ñu dugalee vidéo 30 minutes maximum après mën ngeen dem fekk ko foofu ci Baba Show mais aussi bu leen faté abonné like ñi bëgg football di football amna affaire yi ñëw ci yeen. Wa jeu concours bi dinañ joxe may yi bientôt jaa ngeen